mu ko waxee jotaayub tawféex lay doon jotaayub lay yiw lay doon incha allahu rabbi yàlla nañ ci ko ci yàlla defal ñu fas yéene cee waxtaanee daara importance bi mu am ci jamono waaye jëmmi alquran ci jëmmi boppum sax importance bi mu am ak wagar gees ko war a wagar ndaka noon tamit ci wàllum waajur yi taxawaay bi ñu war a taxaw ci seeni doom ci daara yi waaye danañ ñëw ci am ci daara ji nga xam ne moom la yor moom sëriñ xaadim daara jooju nan la fi toogee mook donga yi comme niñ ko baaxoo defee nan la ñuy jàngalee ci daara ji conditions yi nga xam ne ñoom la moom la fi ndongo yi nekkee awalan euh, ki nga jàkkaar lool mu war a laa xamal war ngaa xam mooy kan sëñ xaadim boo ñu mënoon indil ci sa jëmm taarif boo xam ne mën nañoo xam kan mooy sëñ xaadim Njaay Ar-Rachid waaw kii sëñ Fàllu noo ngi leen di bu baax xam na loolu dana euh, xaw a jafe tuuti ndax mhm. Mm, di wax lu jëm ci sa bopp moom mm, ndax bokkut ci li nu jàngal mm-hmm. ndax danoo <laughs> amul solo lool mm-hmm. eh, xaadim njaay eh, aw dàkkantalam mm-hmm. muy ar-Rashid baayam moo tudd noonu baayam moo tuddoon Muhammad ar baayam boobi baayam moo baaxoo woon ay doomam mu leen di tuddee yonente bi sallallahu alayhi wa kum tuddee muhammad da wutal aw melo muhammad benn almansuur wala muhammad al wala muhammad al rachid donte am na yeneen doom yu tudd ne eh, noo ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Touba Mirina eh, yàlla dogal sunu waajur yoroon dëkk ba ci ndigalul sëñ Fàllu moo ko joxoon mu doon saytuwaa dëkk ba eh, waaye ginnaaw bi jóge na fa ñëw tuubaa bi mu ñëwee Touba itam am na ay barab yu bari yoo xam ne sanc na fa waaye fi mujj mooy barabam bi nekk ndaamaatu diggam ak hôpital ndaamaatu bi diggante bu gàtt gàtt la foofu la nekkoon yàlla dogal bi ñu demee ba toll ci war a jàng alxuraan mu yóbbu nu ci ay daara noonu laa ko mën a waxe ndax daara ji ma njëkk a dem boroom ba léegi mi ngi dund ñu koy wax bàyyi sëñ jaay aalim fee ca daar xudóos fa jegee tokkóor ba lool foofu laa dale alxuraan waaye ndiggante su gàtt ma jógee fañ ñëw fii ci njatara eh, kër baay sëñ jatara doom ji ñuy wax sëñ alaa jatara moo fa nekk muy eh, wax dëgg moo bàyyi sëñ Njaay aalim ñooñu ñooñu ma tudd ñëpp mhm. di ñoo xam ne bàyyi nañ jeexit ci sunu dund ndax alxuraan moom ku ko def ci yow rek mhm. mënatoo koo fay ak loo ko mën a jox nag mhm. foofu laa nekk ba mokkal waaye xam nga gone gu mokkal day daal di bëgg a jàll ci mbindum kaamil bëgg jàll yi itam ci li wax beqi maam fa as ndiggante mel ne xaw naa yéex ci man ma daal di laxas dem njaareem ba may dem mhm. kenn yëgu ma mhm. ba ma demee itam maa nga dem ci daara yi sëñ moor Bay Siise mhm. waaye ndiggan su gàtt laa fa bi sama waajur yegee ne maa ngi njaareem mu santaane nañ ma toxal indi ma kër sëñ Mor Faal foofee nag falaa nekk ba som njàng sotti falaa bindee euh, bu ma jóobu ñaari kaabil door faa jógee ñibbisi bi ma ñibbisee euh, sama waajur gis ne njàngum alxuraan day baax na waaye alxuraan mokkal gi mooy ab tàmbuleem noonu la ma ko daan waxee. Mm-hmm. mooy xaajal bi da daan wax ne alxuraan mokkal gi mooy xaajal bi soo ko mokkalee rek xaajal nga kon am na leen lu ci war a toppaat ci la ma yóbbu kër sëñ bu Mbàkke gi imaam ma boole ñaar di jàngale ca daara ja yor xalqa bu mag mm-hmm. euh, donte am na ku ma ko bokkaloon ku ñuy wax sëñ Abibu Njaay mm-hmm. waaye di jàngale ca mbaarum xam-xam ba baarum xam-xam maa ngi nuyuwaale sëñ Baara Mbacke euh, sëñ Baara Roqeya maa ngi nuyuwaale itam sëñ Alxaaji Mbacke mi nga xam doom la ci sëñ Abibu su ma euh, suñ ma jàng ba waxtu daanaka fukki waxtu ak benn dañuy génn dem ca mbaar ma njàngum xam-xam mu nekkoon mbaar mu barkeel bari lool ñu fa jaar ba ñu demee dem dem ba ca biir nag ma gis ne njàngalem alxuraan di ko booleeg njàngum xam-xam léeg-léeg boo joxee benn bu ne àqam mën naa am jafe-jafe ci laa sàkkuwaat ci sama wajur daal mu dimbale ma ma ma may tuxu ci euh, ñi ma jàpp ne mën nañ ma jàngal loolu ma yóbbu ca jumaa ju mag ja suñ Moustapha Mbaye euh, may jàng fa moom def naa bu fekkee ne jeexlu ma fa moom xalil bi itam euh, xam naa lu néew a cee des doon naa jàng itam suñ xaadim mbay longoor moom itam jàngalekat la boo xam ne bàyyi na ci man jeexit lool ndax euh, bëgguma bëggoon ak na ma daan taxawoo daanaa dem itam fii ci tali bu bees ku ñu wax sëriñ Diop moo fa ne woon mu ngi Kawlax léegi doon ma jàngal jëm ci wàllu euh, mën naa ne qiraa ndaxte ñaari riwaay yi muy Warsh ak kaaloon ci moom laa njëkk a jàngalu aju ci wet googu muy téere bu ñuy wax am na jumu ci noonu ci noonu ma dem ba yàgg daal ma gis ne daal dëgg damaa war a génn dem yokki sama aliwo boobu nag laa tàggu sama waajur mu daal di may jox ndigalul génn daal di may yab door maa yabal nu ma yabe da ne ma xaadim soo demee ba nga xam ne dem dong moo ci des bul tàggoo ndax àddina ñaar nga fi am xarit akum noon am noon soo ko tàggoo day bañ nga raw ko ab xarit day bañ nga wéetal ko mm-hmm. kon mën ngaa dem rek ba ma demee itam mu bàyyi xel lool sama njàng eh, ya nga xam ne moom la njàng ma laaj yëpp mu di ma ko yónnee eh, di ma nemmeeku di di ma saytu ba yàlla dogal foofa moom jot naa faa jaar ñaari barab yoo xam ne si bu ci nekk barab bu ñu xam la am na fa barab bu ñu wax Ibnu Abbas loolu ban ban réew la Murtani gi muy gànnaar Euh, barabam fa njëkk a dem ndekete man booba am naa mustawa te yëguma ko xam nga ña jànguma jaalis mhm. da ngay jàngi téere di jeexal di dem rek mhm. waaye gannaaw doo am ixtibaar mhm. ah, doo mën a xam yow fan nga toll ndekete man ngaa am niveau bu kawe te doo ko yëg ba ma demee jaamia laa dem euh, ñu defal ma imtixaanu qabul yàlla dogal ñu jël ma ba ma nekkee ci biir def yëg naa ndekete maa ngi doon jàng ndaxte liñ may jàngal gis naa ne diisut liñ ma doon jàngal diisul hmm. eh, ma am menn at ca Ibnu Abbas ñaareelu at ma ma dem ci beneen jaamiya boo xam ne moo gënoon a siiw foofu hmm. ñu koy wax almaaru saudi foofu am naa fa ñaari at hmm. ginnaaw bi nag 11 septembre boobu nga xam ne ci la xeexoo àddina boo amoon ci la ñu tëjoon école boobu ma daal di ñibbisi ma ñibbisee sama waajur ci boppam moo ma sañcal daara ndax kër gi ma njëkk jàngale moom moo fay xaalis ba dañ ko doon kër gu ñuy luyee la mu ngi fii ci ngelam mm-hmm. mu fay boroom kër ga ñeenti weer daan may woo ne ma doonte da ngay tàmbalee benn dong ñëwal ma tàmbali foofu laa tàmbalee 2004 mm-hmm. yàlla dogal ma nekk foofu lu xaw a yàgg barab yi nga xam ne jaar naa fa nag door a yegg si fii moom ay barab yu baree bari la mm-hmm. mën naa ne fii mooy sama juróom-ñetteelu barab barab boo xam ne nga fay nekk as diggante borom kër ga ne da ko soxla ah nga daal di xool feneen noona noona ni yàlla sama borom dogale ma yegg si fii ci fii ci Mbàkke mm-hmm. yoon yi ma jaar ba yegg si nag man na am xëy na su ko waxtaan wi laaj mm-hmm. da ko mm-hmm. leeral incha allah mbokk yi noonu moo ko waxee <coughs> dañ ko waxee ci njëlbeen rek baaxoo na ki lay xamal nga xam mooy kan waaye jaar-jaar bi moom euh, ku mu doylu ci doomi soxna wala ci doomi daara amul lu lay doy euh, itam mu am taxawaay bu am solo ndax waaye juróom moo ko taxawu ba mu egg fi mu egg tey kon loolu itam beneen jàngale itam daf ce daf ce daf cee judduwaat waaye itam dégg ngeen ko mu yabal ma yab ma dama xarit ngay am akum noon xarit du bëgg nga daal di koy wéetal noonu du bëgg nga raw ko loolu bind bu bees la ci ñun sëñ Xaadim dañuy ñëw ci <coughs> euh, foofu nga tolloon rek daal di wéyandi muy barab euh, door nga ko sax sëñ Xaadim mu ngi tàmbalee jàngale 2004 waaye juróom moo ko njëkk a fayal ab barab boo xam ne mm-hmm. daan na fa jàngale. Mm-hmm. ginnaaw ci njàngale yooyu sëñ xaadim mm-hmm. ndax dafa jekki-jekki rek tàmbali ci daara cosaan am dafa doon def li nga xam ne mooy internat comme ni ko niñ ko baaxoo gis ci jamono ji. waaw kay jërëjëf sëñ Fallou daara cosaan moom dama cee jaar ndax kër sëñ Mor Fall ga ma jànge njaareem ginnaaw bi ma jógee njatara euh, mën naa ne ay daare cosaan la mhm. doonte njatar xawoon naa wuuteeg mm, barab yooyu ma tudd njaareem mhm. ndax boobu ñun dañ daan jàngi di ñibbi di dem ñëw am na suñu mag yu fa newoon mhm. yoo xam ne fa lañ jàngi alxuraan mm, bu waxtu añ jotee ñu dem ca kër ga ñu tibbal ñu bool ñu indil leen ko ñoom ci noonu ci noonu ba yàlla sama borom dugal daanaka ci noonu lañ mokkale man ak sama mag ji ñuy wax Murtala Rachid Euh, lu mën a xew njàngoom cosaan moom mën naa ne dama cee jànge waaye nag bi ma demee ba gis ne damaa war a ubbi daara ak fi jamono toll xaw a soppi tuuti méngoo ak jamono du ci mën a ñàkk ndax liñ mënta soppi mooy alxuraan waaye moyens yiñ koy defee walla jumtukaay yiñ koy defee loolu mën naa soppeeku yooyu mën naa soppeeku dafa am lu ñuy wax ay sawaabit mooy yoo xam ne du soppeeku mhm. ci diine buñ dem ba jëmi jamono ñu ne julli juróom yi dañ koy def juróom benn juróom rek lay doon waaye nag maanaam wasaa'il yi muy moyens yi ñu koy defee bu njëkk ñu daan jullee ci jàkka joo xam ne ci tuusu tàndarma lañ ko liggéey ñu dem ba yàgg ñu julli ci tànd jàkka joo tabax la loola mu ay moyens la taxuñoo li tax a jug mooy jaamu yàlla gi ci boppam alxuraan ji itam li ko tax a jug mooy mooy nañ ko jàngale mm-hmm. waaye nag ndax dañ koy jàngale ci ay sàkket moo ñuy wër ndax dañ koy jàngale ci ay néegi ñax mhm. loola de am na jamono mu tolloon fa mhm. ay jamono tolloon na fa euh, ndax dañ koy jàngale njàngale moo xam ne si duñ ci laaj kenn dara mhm. loola moom mën naa ne mosu fi am ndax li amoon mooy benn sëñ daara bi ci waxam nga di ko jox mu yor sa doom ci biir daara ji wala joxoo ko muy sant sa doom muy fayal boppam ndax sa doom faaw day yalwaani te yalwaan moom mooy li muy tekk moom mooy kon sa doom moo bëgg a dundal boppam hmm. ndax la muy yalwaane ca lay dunde wala nga di ko yóbbu ca àll ba muy liggéey loole muy liggéey nga ciy dimbini ko yow suñ daara bi hmm. waaye njàng moo xam ne moom gratuit la moom hmm. eh, loolu moom fi woon moom waaw xanaa ci gis ni moo soppiku rek waaye benn dongo bi mooy fayal boppam ndax mooy dem ca marché ba yalwaan dégg nga ma maanaam ñëw di dund loo xam ne moom yow yàkkooroon taxaw yow waajur yi yàkkooroon taxaw booba Euh, ci seen gisin mooy dañuy indil suñ daara bi rek ne ko ay wax ay yaxam laala lañ mm-hmm. am na wet goo xam ne si doo mën a wax mm-hmm. ne gàttañ loola mm-hmm. ndax niñ xëre woon ci seeni doom jàng alxuraan ba yeggoon ci di indi ay jéng naan bu jàngut jëngal ma ko duumal ma ko loolu da nga yëg ni ñuy xër nañ ci alxuraan lool waaye na ci wet goo xam ne da nga wax dëgg xaw nañ caa kii tuuti xaw nañ caa gàttañ la tuuti ndax doom joxe ko fi barab du tax ab dundam wàcc la wa alal mawludi na wa risquhunna wa na bil maaruf doom ko daayam doom eh, ah, dundam yow mi nga xam ne yaay wajuram yow la war mhm. sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne doy na sëkk nit ki man a mu sànq koo xam ne da ko waroon dundal mhm. ñenn ñi jël seen doom rek bàyyi fi barab duñ xam ci lu mu nekk loolu wax dëgg yàlla ak gàttañ la mhm. eh, am na wet gooy xool nag wax dëgg da jàpp ne eh, sëñ daara ya nañ bindoo woon jamono jooju nga xam ne si da duñ la laaj dara xëy na moo moo yóbbee woon nit ñi ak nit ñi dañoo bëgg itam lu yomb koy waxee boo xawee yomba rek daa nekk du ñu amati soxla ci fii biñ demee nag ba nga xam ne jamono àgg na foo xam ne sii nag wax dëgg yàlla euh, faw ñu lootee ba lootaa bi waat yëf yi tegaat ko ci aw yoon ci la système u ñëw ñun bi ñuy jàmbale sunu njàng foofu lañ ko ci njàngale bi ñuy tàmbalum njàngale ci loolu ko tàmbalee mooy waajur yi mooy ñëw ne sama doom laa bëgg mu ci barab bi loolu dana ko fegal duutu yalwaan yi te yalwaan bi kat baax na naam waaye lu ne ngi ci Mm-hmm. ndax oto yi mm, mën nañoo dal ca kaw kay yalwaani mm-hmm. donga bi mën naa gis lu wërta gis mm-hmm. mën na caa wut ay àndandoo yu mu wërta àndal loolu lépp bu dee système internet bi du ci am xale bi day nekk ak yow ba noppi itam day am jotu man di jàng njàng moo xam ne mooy gën a yaatu bu fekkoon day yalwaani yalwaan ba daanaka ay onze heures nga soog a ñëw bokk la ki nga xam ne bu xëyee day teg day tàmbali jàng moo tax mokkalu gi gën a gaaw ci internet yi mokkal gi dafa gën a gaaw ci internat yi dara waral ko mooy dañoo gën a am temps bu yaatu rek dañoo gën a am temps bu yaatu bu njëkk tey eh, gënoon naa ki da ngay xëy dem tool bala ngaa ñëw daanaka ay une lay doon soo añee diggante su gàtt nga gontaat bala ngaa ñëw daanaka jant bi so kon yow bis bi sax li nga ci am doyut loolu moo obligé woon ngay ma marax di jàng ay njël xool tey li ñu am ci ci temps li mu ni mu yaatoo gane yi dañu mën a mokkal mokkal goo xam ne gu rafet lay doon te duñ leen fitnaal duñ am benn jafe-jafe. te loolu yaakaar naa ne ak lu jamono gën di dem nag muy gën di rafet di gën di baax. Mm-hmm. nit ki di jàng xam ne moom moo gën a yella ci ñu di ko teral moo gën a yella ci dëkke fu baax. Mm-hmm. ndax kuy jàng alxuraanul karim nañ ko gisoo woon démb ak nañ ko jàpp woon démb. wax dëgg yàlla sofaanoon na lool ak li alxuraan laaj. nit ñi ñoo waroon a jàpp ci daaree alxuraan yi xam ne. jàpp gañ cay jàpp ci la leen yàlla sama borom di jàppale. Mm-hmm. way néew doole yi nekk ci biir daara yi ñu leen di saytu di leen taxaw ndax alxuraan yi ñu fa jàngi kat waxe suñu borom yàlla la. Mm-hmm. te alxuraan moom kemtulaay ni nga ko terale mm-hmm. noona la yàlla sama borom di ñëw ci say mbir terale lu mel noonu. kon mën naa ne ci sa laaj bi daal bu ko dee tënk dama naan man ci système internat bi ci laa tàmbalee am. am jàngale. macha allah macha allah jërëjëf Xadim ci leeral yu am solo yooyu mu leeral. ci njàng ak niñ ko war a moderniser gi ci aju mhm. euh, ci sa biir wax yaa ngi ko doon wax xam naa ma nañ ci romb rapidement euh, nee nga euh, barab bii du sa barab bu njëkk boo xam ne jaar nga fa mhm. jaar nga ci barab yi fasantikoo